waaw ki ngeen gis ñu jàkkaarloo suñu papa la muy père Ousmane Diouf kenn dootu ko laajtee ci làmb papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay di wax rabbil alamin di wax xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw seede yi ma mën a indi rek mooy sëñ Modou moom yàlla moo boole woon ak moom ñu lool góor gu baax rahmatullahi alayhi alaaji Mbassa mat nag léegi ans ñuy ànd ànd bu rafet mu nekkoon sama xarit nekkoon sama genn wàll nekkoon sama confident daaw ma gëj a gisante moom ñu doon bokk lekk di bokk naan di bokk lépp euh, yàlla jël ko mu doon ko xam ne ku baax la woon ku amoon yërmande ku amoon sincérité ku amoon diine ku euh, mënoon a dimbali am social. te koo xam ne danaan euh, jëf kenn du ko xam te bëgguloon sax ku siiwal ay mbiram moom daal dafa nëbbatu ba dem mais ñun ñu ko jege sax am na lu ñu xamul ci moom sëñ Modou daal li ma la mën a wax ci moom mooy sëñ Modou Sénégal yëpp la li ma gën a frappé ci moom mooy ngor bi mu àndee ak président Ablaye Wade ba Ablaye Wade wàcc ci la gën a téye Ablaye Wade ba tey nii mu demee Touba loolu ngor ween mënu koo weesu. te it ñi fi nekk nii nga xam ne tey ji mooy président Macky Sall xamante na moom bu baax ndax moom tëggal na drapeau président Macky Sall ba premier ministre Abdoulaye Wade la woon ñoo àndoon waaye terewul dafa téye ngorom rek ne moom daal ginnaaw Abdoulaye Wade mooy baayam te mooy magu Karim du bàyyi mukk Parti démocratique sénégalais li ma mujjee woo ci téléphone li ñu mujjee téléphone sax wax ak moom mu mooy booleeg euh, Awa Diop responsable PDS bi nekk fi Pikine Nord jox ma numéro xaadim ne ma ne wool xaadim boobu hôpital ah wool xaadim mu dajale carte d'identité yëpp. ci feebar bi mu mujjee feebar bi ko yóbbu tey. bi ko yóbbu tey lay wax nii kay matul une semaine mu décédé ndax man mercredi wax ak mu décédé samedi waaw man mercredi wax ak mu décédé samedi kon donc man sama xarit. yan ngeen mujjee wax yéen ñaar yan euh, dama ñëw wàcc li dama liggéey euh, rajo Dunia. ba ay 16 sama yaram daal neexul ma wàcc ñëw kër ga añ sama xel nekk ci moom ma jëlaat oto ñëw fii ci buddu kër gi bi ma ñëwee ci kër gi fekk fi gardien bi mu di ma nëbbatu naa ma dafa génn ma ne ko noo génnul ndax waxoon na ma ak moom téléphone mu ne ma doom ji na ma sama papa mi ngi dalal jàmm ma jël sama téléphone woo ko. loolu c'était le mercredi à vingt heures ma déc ma décroché téléphone am ma ne ko foo nekk mu ne maa ngi dalal jàmm ma ne ko waaw mais kon yow da nga jógee roi ba doyen mu ne ma waaw mais tane naa ma ne ko non kon maa ngi ñëw mu ne ma bul ñëw ma ne ko maa ngi ñëw mu insisté na bul ñëw toogal bul ñëw toogal xaar ma fii ak deux jours dinaa génn ñëw ñu taje kër ga lii la mujj waxante ak man. ndek ca deux yooyu mooy samedi bi le matin biñ ma woowee euh, mu génn àddina ma ñëw tiim ko ci morgue bi ndekete boobu gise la boobu gise la. mercredi nga gëj a gisan dégganteeg moom nga yeewu samedi nan nga yégee dëj bi. dëj bi dañ ma woo téléphone le matin Papa Ndiaye Aïda ndax du ma yeewoo xool sama téléphone gis appelu Papa Ndiaye Aïda Mboup gis appelu Mbaytin gis appelu Pape Samba laa ne ah kon mbir am na. automatiquement sama xel ci la ñaaw ma daal di jël ma wootee Papa Ndiaye jooy ma daal di coupé daal di jël oto ñëw fekk leen fa la dalal jàmm waaw noonu daal laa ko yëg papa lan ngay wax ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci làmb ñu gis làmb détails yi dafa bari lool te bés bi war na yee ku ne papa nga xam ne jombul kenn kenn ku nekk sa bés dina ñëw yan kàddu yan ñaaxe ngay jox sa doom yi nga xamante ne ñu ngi ci axlu làmb li ma leen di wax mooy nañ jàppante ndax bés bii ku ci nekk sa wàll dina ñëw xëy yendu ji wala fanaani sëñ Moodu daana faral wax na ku su àpp mat nga dem te kenn ku nekk war ngay xalaat bés bi bés bi ne ku ko war xalaat war ngaa rafetal war ngaa nekk ku jaamu yàlla war ngaa sédd sa digganteeg doomu aadama yi war nga rafetal sa digganteeg doomu aadama yi war ngaa moytu def lu ñaaw lu yàlla tere li yàlla digle ci lu baax te yàlla lépp lu mu digle lu baax la jëf ci loo man li yàlla tere moytu ko loo man te doolu mooy ndaw ñi loolu laa leen dénk di gërëm nag bu baax ak lu làmb ndax keroog euh, bi may ñëwee dalal jàmm du Abdou Fall muy président association promoteur yi ma nga fa woon ànd ak ñoom Fallou Ndiaye ñoom Assane Ndiaye Bamba Faye tubaarkàlla ñoom ñëpp te it bi ma ñëwee démb ñu fekk naa nag wi ñu yeew ko fii ñu ne Gaston Mbengue moo ko fi indi ma ñëwaat fekkaat fi beneen nag ñu ne association promoteur yëpp ñoo dajale ñoom indi nag wi ma ñëwaat gisaat beneen nag ñu ne ma Ibrahima Diop Kajoor production moo ko indi Kanji production indi na fi ceeb indi diwlin indi ay ndox indi lu ne tubaarkalla macha allah gis naa ne daal promoteur yi nga xam ne ñoom la bokkaloon làmb ji euh, wax dëgg yàlla def nañ ay geste te loolu euh, rafet na te loolu daal vraiment kontaan nañ ci trop waaw kontaan nañ ci trop. lan ngay wax njaboot gi fi des. njaboot gi li ma leen di wax rek parce que njaboot gi samay doom lañu ndax man daf maa jëloon ndax féetale ma njaboot gi xale yëpp bi ñu ma xoolee démb sax même Ndiaga bi nga xam ne dese bi fekk ko fi ni ko fekk Dubaay démb dama koo xaar ba mu ba mu ñëw vol bi mu wàccee ba mu ñëw bi ma gisee bi ma joxe loxo daf na ma yaay sans papa. ndax dafa xiirtal xale yi ci man ne ñi kii mooy seen baay loolu nag tey damay fas yéene doxal ko kóllëre googu dama koy fas yéene matal ndax euh, soxla yi ci biir kër gi ak xale yi ñoom ñëpp daf maa xiirtal ci famille bi bokkoon naa ci ñi ko gënoon a jege ñi ma doon wéetal njaga bi ma joxe loxo démb dafa na ma yow mi yaa doon wéetali sans papa sëñ Modou daawul daawul amuloon amuloon affaire kenn sëñ Modou bu nokkee biir néegam bu seetaanul télévision amul ku ko waxtaanal jël na alxuraanam di jàng wala mi ngi jàng xasaaydu Serigne Touba tubaay ba nëpp nekk li ma gën a neex ci moom tarixa yëpp la yemale ñëpp la bëgg jullit daal la bëgg jullit moom daal jullit akkan dem na jullit akkan dem na li ma mën a seede mooy jullit dem na waaw jullit dem na. ñu lay jaajëfal papa bu baax di ko ma saw yow tamit bu baax a baax di la ko jaale di ñaanal di leen di ñaanal yàlla yàlla may leen xolum. amiin amiin ndax Mouhamed maa tax mu xamante ak Serigne Modou waaye Mouhamed it dëgg-dëgg eh, jàppante naa ak moom lool lool lool lool jàppante naa moom lool du ko ñaan aussi seen site bi yàlla na ci yàlla teg loxo yàlla na barkeel.